dafay jaadu nag bu ñu déggee yu mel nii ñuy jàppale nit ñi ñu ngi def ay tournée di dem di bërëb sàngam ministre bi sàngam mooy jow bërëb sàngam nañu ko teeru nañu ko nangam nañu ko nangam nañu jàppale nit ñi te yàlla tax dañu koy soxla ndax nag dañu toll foo xamante ne nii tey metti na ci ñoom toll foo xamante ne nii sës nañu rëkk te nag daf ci am loo xamante ni ñoom dañu bokk ci ñun wax naa leen souvent daan nga seetaan théâtre ba mu yàgg nga yeeyu di jooy ndax di di gis dundin boo xamante ni rek nit ki daf koy dund mu nekk loo xamante ni yow dafay mel ni si comme si dëgg la théâtre yu jëkk yee nag laa wax comme si dëgg la mu nekk loo xamante ni da nga koy dund mu metti lool ci yow waaye nag dina la delloo si ba yee la ci àddina ba lu mel noonu bu la dëgg ma la tey da ngay daal di xam fooy jaar kon loolu dañuy jàpp ne émission kër gi yàgg na ci ñoom pour pourquoi tey ñoom kenn ku ci nekk tey yaa ngi toog bërëb di joytu gisoon nañu fi euh, kenn ci euh, ñoom ku ñuy wax defe naa Thierno euh, Ndiaye te mu nekkoon di jaayu góorlu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi tëdd tey feebar ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay waykat lañu seen baat lañ daan dundee bu ñu demee ba arrêté loolu dootuñu amat lu ñu dundee ndax dégg ngeen di ko olof Ndiaye di waxee kuy woddoo làmmeñ saa yoon noppee da ngay rafle seen làmmeñ lañ daan woddoo bu ñu demee ba mag dikk wala bi ñu demee ba wéré di dikk ñu noppi amatuñu lu ñu woddoo pour lan te ñu tegal leen fi ministère yoo xamante ni de tutelle la wala ministère yoo xamante ni de affaires sociales la te ba suñu jon yàlla tey ñu ngi leen di setaan ñoom ñëpp ñu ngi jooytu ñoom ñëpp ñu ngi am naqar ñu demaat régi rek euh, seetaan benn clip wala ñu kale élément bi su ko defee bu fekkente ni kenn ngi ci ligne bi rek ñu dellu siwaat jëlaat ko ñu tegal élément bi sax ñu bàyyi clip yi ñu teg ko nit ñi dégg ko déggaat ko parce que xam naa ni yéex gee tàmbale gee tax nit ñi yaakaar ni tey seen émission kër gi du am ah dina am ndax nag làmb ji jeex na dimanche tey nag altine noppalu nañu te ragal naa ne li nga xamante ni defal nañu leen ko ci wàllu aada ak cosaan kontaan ngeen ci dimanche bi loolu moo taxoon rek altine démb gi ñu noppalu nañu dem régie seetaan élément bi dellu siwaat asubillahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki Sénégal maa ngi leen nuyu man du jàkk maa ngi nuyu sama tur di leen nuyu ci turu bépp artiste comédien ba nuyuwaaleel sunu mbokk nga xamante ni bii jóge nañ fi yàlla na yàlla woyofal su seen kaw seen njaboot a ngi leen di nuyu maa ngi nuyu Sénégal yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu jullit yëpp di nuyu sama mbokk chrétien yi maa ngi nuyu sama mbokk taalibe yëpp yëpp laa wax bàyyiwuma benn tariixa rawatina ci nag sama mbokk murit sama kàddu gi ne li tax ma yëkkati ko tey jii yëkkatimu ko ngir sama bopp naam maa tax may ndey mbili gi waaye dama ci laawaaleel képp koo xamante ni bii ko ma jéng fii senegal man sama jëm bopp nag ñeent fukki at ma nekk leen ñeent fukki ma di leen bégal ñeent fukki at def seen bànneex ñeent fukki at ma di gindi kon tey jot na bu ma soxlaa sama bopp ma jàkkaloog askan wi dis leen sama bopp damay fal di wax ni man sama loxo duma ko taal kenn ku yàlla subhanahu wa taala waaye nag dama naan rek yàlla mooy doomu aadama yi ndax suñu boom li mu yor lépp mu ngi loxoy doomu aadama kon yéen mbokk yi di tax ma toog tey fii ci 2STV gii ah mbir la moo xamante ne bii sama mbir la seen mbir la muy lan muy sama doom bu feebar sama doom boo xamante ne bii ba ma ñetti at ah la feebar ba suñu joon yàlla tey ba fi ñu toll war naa am presque fukki at ak juróom-ñaar fa mu toog mun faa jokk may lancer appel nag képp koo xamante ne bii mas naa laa bëggal donte benn benn bis. mas ngaa bànneexu ci man donte benn seconde mas naa laa apporte njariñ ci liggéey bii may def di théâtre bi nga moom la ñu yàlla lu toll nii traversé ay ni maa ngi lay woo ci sa njaq ci sa kattan nga jàppale ma sama doom ji moo xam su ma ko mënee faj ma faj ko fii ci Sénégal wa illaa su ma ko mënee yóbbu bitim réew ma yóbbu ko bitim réew kon mbokk yi ah artiste comédien Sénégal yi nag war nañoo yooxu nag ndax damay wax ni la ko dale ci Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade amu fi lenn lenn loo xam ne taxoon nañu ko atta si comédien wala defoon nañ ko ko kon maa ngi lancé appel na kii fi nekk tey jii di son excellence monsieur Macky Sall excellence monsieur Macky Sall maa ngi lay woo sama mbir mii maa ngi lay koy teg sa loxo ñi feebar ñëpp dañoo bàyyi ba ñu dee ñu doog a wu te loolu day def naa ni ngërëmal yàlla nekku ci ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam néew ci nit ki soo koy dimbali da nga koy dimbali bi muy dund wala nit ki toll diggante nga taxaw dimbali ko ndax ko defe naa ni ah bu fekkente ni li tubaab naan on a donné tout ce qu'on avait dans notre ventre nous les artistes comédiens moi je pense que wàcc nañu suñu peuple wàcc nañu suñu nation actuellement am na benn association bu ñu mettre sur place muy ARCORS artiste artiste du théâtre sénégalais waaye la ci war dem dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg demu ci ministre de la culture bees bi di Youssouma Jigéen li ñuy xaar ci moom que homme de culture kon defe naa li ko dëgg dëgg dëgg dëgg rek ah mooy artiste comédiens yi génn ci souffrance bi ñu nekk génn ci ndóol gi ñu nekk génn ci naqar la ñu nekk rawatina ci nag kii nga xamante ni mooy président Macky Sall di nit koo xamante ne bii Sénégal yëpp am na ci moom yaakaar yéen ñëpp maa ngi lancé un appel ci li nga xamante ne bii sama itte la ba tax tey jii ma ñëw toog fii ndax wala fi nii ñàkk pexe pexe la kon maa ngi xaar seen ndimbal ah ci sama doom bi nga xam ne dafa feebar te sama itte àdduna dong dong dong lenn lu dul bala yàlla jël sama róogi ma gis ko mu dox daaxu daagu romb ndeysaan sa itte day itte way jur euh, bu nekk la boo xamante ni dangaa yor doom ju wéradi itteem yépp mooy balaa yàlla jël ruwam gi mu gis doomam ji romb ko dox dem mu nekk nag loo xamante ni ay kàddu la mu tibbee ko ci xolot doon itam loo xamante ni lu metti lool la ndax na muy waxee mag Sall excellence excellence l'espoir du Sénégal ma ne ko ah, xam naa gàtt na làmmiñ lool lool lool wax ji day néew na lool yàlla na jëf ji bari Euh, ndax nag euh, kuy soog yéeg la te yàqamti ci dara te nag euh, wax naa leen ko luñ ci bëgg a dégg rek danañ ko dégg kon tàllal nañu ko suñuy loxo ndax nag moo ci mën a jàpp jarul sax muy jaar ci ñun ndax jaak moom defe naa ni ku ko soxla ak foo mënti jaar rek di nga ko di nga xam fa ngay jaar ba jàppale ko naka ngay def ba jàppale ko di nga ko xam waaye nag mbokk yi nga xamante ni ñoo toog di seetaan itam ni mu ko waxee jàll jaay yaa ngi ci dëkk bi ah julliti yàlla yaa ngi ci dëkk bi te nag dara yitteelu leen lu dul gis koo xamante ni ku sonn la ñu jàppale ko te yàlla rek tax rawatina nag koo xamante ni nekkoon na ak ñun di ñu jàppale ci wàllu bégal ñu di ñu loo talaata bu nekk kenn ku ci nekk watat sa ban ñi lal basan toog ca kanamu tele ba lu mu gën a jege rek nga jege toog jàkkaarloo moom di ko seetaan kon tey bu toogee ba te te nag ceetaan mañ ko doon seetaan laaju ñu dara en contrepartie kon bu ñu toogee tey ba suñu jon yàlla tey mu nekk koo xamante ni dellu siwaat na ci ñun indiwaat beneen kanam indiwaat yeneen kàddu indiwaat yeneen i xalaat muy lan jooytu ci doomam joo xamante ni dafa wéri di ragal naa ni ña toogoon di ko seetaan tey te nekk mag yi jëmm tey yàlla dénk leen dara dinañ ko bàyyi xel bu kenn nag euh, su ma yónnee sama junni bii du ko mën surtout sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk ci biti ak ñu nekk ci biir réew mi sax ku ci mel ni ki nga xamante ni moom la ñuy wax alaaji maam Cheikh Mbay bu alaaji jiili ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar ak a baax te mën a taxaw nit te nag euh, bu génnee rek yow yaa ko génne yow mi nga xamante ni yow la ko defal lépp daf ko boole noppi ak joxe waaye tam am sutura lool seet ci yàlla seet ci juróom wa daan def mu jéem a taxawee ci tànk woowu kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax maam Cheikh Mbay bu alaaji Jili Mbay di ko ziyaar di ko ñaanal yàlla gudd gu fan gu ànd ak wér waaye nag ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi kenn ku ci nekk boo dendeek sa morom laaj ko ñaat téeméer wala ñeenti téeméer boo waree fukki buntu kër léegi mu doon dara nga jël ci paasub taxi téeméer jox ki nga xamante ni mooy xale mu indi 2STV yi wala ñu dem fekk ji jàkk fa mu nekk ñi nga xamante ne ay sénégalais yi la ñu itam nekk bitim réew kenn ku ci nekk boo dendeek sa morom moo xam 2 euros trois euro ba cinq euros léegi tey boo ko dajalee mu doon dara ca la war su ko defee nga jël ko def ko ci nit ki te yàlla rek tax mu mën a jàppale doomam ji ku ko mën a jël en charge itam mu dem ci biti dem faju itam defe naa ni loolu ca la dàqe balaa ci état def loxoom ndax nag yàgg nañu ak yéen yàgg ngeen ñoo jàppale yàgg ngeen ñoo dimbali ci kaay yi nga xamante ne dañ koy am ci kër gi kon ragal nañu amaat nañu rafet njort ne yéen lañu ñu koy delloowaat ndax nag souvent dañuy faral di wax nit ñi bu ñu ñëw ci ñun di wut li nga xamante ni mooy ndimbal ndax goo xamante ni jógewul ci état ndimbal goo xamante ne amuñu fenn fu ñu ko tibijee lu dul taxaw tàllal sunu loxo nit ñu di may ñuy dajale ndimbal googu dafa nekk loo xamante ni des fois duñ ci faral di sori waaye nag am na ci loo xamante ni euh, olof Njaay daf koy faral di wax mu ne tàgge boo am am na jàpp foo boo gis am na jàppal ma diw tey nag am na loo xamante ni mënoo koo defal ñële waaye nag léeg-léeg situation dana la njëtt ba nga def ko te nag ki tax ñu koy def du kenn ku dul ki nga xamante ni daan nañu bégal te amaana dina demaat ak de yeneen ak yeneen ak yeneen média su ko defee ñoom ñëpp ñu ànd dugal ci ndax dafa nekk boo xamante ni cas bu la waaye daal nañu delloo si waat xel yi wax naa ne li ñu xewal léegi gis ngeen ko nit ñi duñ ci bàyyi xel mémorial levée du corps caméraman yi ñëw ñu filmer ko daal di teg teg sëru njaago ci kaw seetlu leen bi ñu ko tàmbalee ak léegi ci ñi siiw seetlu leen ak léegi boobaak léegi ñaata yoon la fi am seetlu leen léegi ni muy tegloo bis bu yàlla sàkk rek nga gis mémorial levée du corps góor ñaak jigéen ñi jaxasoo ci hôpital ba ñu daal di jël micro teg indi man teg ñu tàmbalee filmer diw day meloon na nii diw day defoon na lii diw day nangam sangam génnee seede certes seede yi rafet na trop waaye nag boole woon ca dey diw mii lii jàppale woon nañu ko yàllaa ñëw ak mbiram dafa doon dàq wala sax ñu dàqal yu mel noonu dafa nekk loo xamante ni nit ñi nañ koy bañ ñi nga xamante ni dañu nekk ak ñu siiw ñu siiw ñoo ñu génn àddina ñu indi ay caméra di teg lali sëriñ njaago gangar gangaree dugal ah, ah man d'accord ma ci ñemew ma ko sax ñu jël ki ci ligne bi allo. allo oui. waaw allo. oui allo. allo sama sëriñ. allo waaw yaay booy. waaw nee na tuuti ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñoo ngi ziar bu wér. Mhm, tox bi naka la fa wootee. tur bi nag dama koy labal naa la ko allo allo. ndeysaan mu leb tur wi waaye ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci jéem gee dugg xaaraan di ko waat rek mu jéemaat indi xalaatam ci li nga xamante ni moom la ñu yëkkati te nag bari na ci ñoo xamante ni tey ñu ngi koy dund euh, teg nit xam ma ndax dagan na wala daganul de parce que euh, côté boobu du sama domaine waaye daal liñ ci xewal léegi man ñi